mbokk internet yi taamu di ànd ak ñun saa su ne ci ñaari chaîne d'information yi di Dakar People ak Actubuzz di amale di ànd ak yéen ci ay débat yu am solo ñëwal actualité bu Sénégal ñoo leen ko fas yéene continuer ci bésu tay bii fas yéene sekk waxtaan ak ku nga xam ni kenn doon leen ko présenté muy Baba nekk animateur bu nekk fële ca DTV ñu xam ko bu baax a baax fii ci Sénégal moom leen fas yéene sekkal waxtaan ci coow li nga xam ni moo lëmbe Sénégal jamono ji di ojo yi nga xam ne daal nay fës jóge fële ca TFM nga nga xam ni fa la Kouthia di liggéey moom Kouthia sax ñu ko ci tudd bu baax a baax moom baaba mi aussi coow li nga xam ne tudd nañ ci kii di Pape Cheikh nekk wëllëreew Pape Cheikh Diallo war ñu fas yéene sikk waxtaan ak moom tey jëmale ci coow li dañ koy bàyyi mu nuyoo ak yéen nuyoo askanu Sénégal ginnaaw loolu ñu dem ci biir waxtaan ak moom baaba nuyu nañ la euh, maa ngi leen di ziar mon frère di nuyu mbokk site internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan à travers Dakar People ak Dakar Actu ah. Actubuzz Actubuzz euh, nuyu naa leen di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax. Euh, jërëjëf Baba delloo ziar bu wér a wér euh, ñu am mbégte contentement bu baax a baax tey di jano ak yow fu ñu fas waxtaan li nga xamante ne mooy li xew jamono ji ak ci ci réew mi. mais leneen yi dañ ñëw tuuti tamit ci carrière bi tuuti ci li nga xamante ne mooy ci côté animation bi nga xamante ne yaa ngi koy def fële ca DTV gis nañ ko ba nga ñëwee foofu ba léegi nga am benn émission boo fay def con émission bu nekk boo xamante ne bu garaaw am na fa ak niveau bi jamono ji ci côté Baabal lan la loolu système bi. ok ay da waxal ñii ñu may ñu tuuti interview ñu euh, euh, euh, mbégte contentement lay am. Mm-hmm. ci li nga xam ne ñëw ngeen chercher ma avant mm-hmm. tout d'abord. Mm-hmm. Euh, émission ça bouge yaakaar naa bari ko ci mbattal la pousse mu dem pousse mu dem. <laughs> Euh, ñi koy seetaan euh, DTV la magie de la télé tous les vendredis à partir de vingt et une heures. mu doon daw fi nga xam ne ni moom fu Walfu jóge fu Dakar TV. jóge mm-hmm. Dakar TV ñëw fi nga xam ne. Mm-hmm. moom mooy DTV comme ni ngeen ko gisee rek mooy ziar waa équipe bi yëpp maman Aïcha Bousso. ay Aïda Adama ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci euh, plateau Sabousse bi di ma gunge rek mhm. euh, ziar naa leen bu baax a baax di nuyu sama PDG mhm. euh, Jupiter Diagne maa ngi koy ziar di ko bàyyi xel bu baax a baax mhm. ci ci naka noonu laay ñëwee rek waxtaan ak yow ci li nga xamante ne mooy dafa mel ne Walfadjri dafa ne bon talent bu baaba parce que ñu si nga ñëw DTV def di fa am loo fa exploité lu bëree bëri parce que di invité ay qualité nit yoo xamante ne tey émission bi ñu bëri ñu ciy bàyyi xel waaw Walf nag naa école la ñoo ma def nu ma mel Euh, bi may ñëw Walf euh, Mansour njaay moom moo fi indi woon. Mm-hmm. René Sall mu yor petit déj. moom mu doon corsé. Mm-hmm. Aïda Patra ñoo fekk ma ci rajo bi. Mm-hmm. may jàng. waaw euh, gannaaw bi ma jotee jot jotaay xale yi maam yaxi laalo. à l'âge de douze ans ma nekkoon RTS. jóge RTS defoon pause ñëwaat Walfadjri gën ma woon yoon bi quoi. mun naa ni à part RTS Walf ñoo ma jàngal. dëgg la dëgg la sa diggante ak Aïda Patra gis nañ gis. seen diggante waaw Aïda sama yaay la Aïda mi ngi fi mm-hmm. xam nga léegi daa màgget mm-hmm. <laughs> li mu mënoon mënatu ko waaye Aïda mm-hmm. euh, mi ngi fi Aïda dafa jël junjun ñu bàyyi ko xale yi waaye mi ngi fi mu ngi ci jàmm bu baax a baax ok dëgg la ci naka suñu noonu la ñuy ñëwee ci jamono ji li nga xamante ne mooy euh, baaba xew na fi ci ay problème de audio fuité ci Kouthia mi nga xamante ne tey mu ngi TFM dafa liggéey jamono ji boo xoolee TFM jamono ji yëngu na yëngu boo xamante ne nii koy ku nekk ah, yi bari na boo xoolee ci diggante Kouthia Pape Cheikh Amina Poté et cetera ne tuñe mais ku wax sa diggante xam na sa wóllëre la parce que coow yàgg na tuuma bi yàgg na lan la Papa lan nga ciy wax waaw ci Pape mun naa cee wax mm. moi je connais pas Amina Amina Poté awma relation ak mm-hmm. euh, mais Pape sama papa la mm-hmm. sama xarit la mm-hmm. sama confidence la nit ku yàlla baaxal waaw farmata yéeli jéey mboose yéeli jéey ma làmmin yéeli jéey mhm. maa ngi koy nuyu de passage di ko wax yàlla na la yàlla sàmm mhm. defal la jàmm aar la yiir la làkk la fu làkk yeggul mhm. nee naa ko yaa yenu yen wi onk woo làcce woo ku la aw parce que coowu Sénégal képp ku ko mën a yenu rek eh, yaakaar naa jàmbaar nga waaw man may xool ci moom lu bari li may xool ci Pape Cheikh di ko def ci sama bopp dafa bari man li may def ci télé bi wala di ko def ci rajo bi. Mhm. du man man sama diggante ma Pape Cheikh mun naa ne coupé collé la man damay xool li muy def. Mhm. ma di ko def. Mhm. bu ci tele bi rek. Euh, ci liggéey bi muy liggéey ci fulla bi fayda bi personnalité bi. ak ñàkk a bañ a tontu bi. surtout mosoo leen gis lii may def nii Pape di ko def. ay interview ñi koy laaj muy wax musta am. Euh, mu nekk nit ko am personnalité. nee naa ko li nga liggéey ci réew mi monument nga faxas du ko dindi. Mm-hmm. waaw euh, coow li nag bari na. Mm-hmm. waaye man li ma naan euh, borom caq dangay moytu borom baatu neen. Mm-hmm. Pape mi ngi naan du tontu du tontu du tontu du tontu Pape a ngi tontu de. Pape Cheikh <laughs> mi ngi tontu gars yi na leen tontoo. ka wax nawloowu ko. pattam boobu. dafa am lu muy jàngale. xam nga léeg ngeen dafa am personnalité Pape Cheikh doo dégg mu tontu waaye wallaahi azim mi ngi tontu gars yi. parce que pattam bi muy patt rek noppi bi rek am na lu muy jàngale. Mm. noppi bi li muy jàngale mooy ka wax nawloowuma la. noppi bi li muy jàngale mooy borom caq da moytu borom baatu neen. Mm-hmm. noppam bi li muy jàngale mooy wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo mm-hmm. parce que koo nawlawul doo defanteeg moom koo nawlawul doo xeex ak moom te ku nekk sa nawle mooy sa gaynde mm-hmm. ku gis sa gaynde waaf jàllo jéeri maa ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla sàmm aar la yiir la làkk la fu làkk yeggul. mais. alors euh, Baba il faut ñu jéem a campé bi débat bi tuuti ci Pape Cheikh. donc ñu taxaw foofu noonu. parce gis nañ que cooli cooli mooy nit dafa yëkkat ay kàddu jaar ko ko jiñ mbirum mbirum borom ñaari tur yi. Mhm. yow mi xam ne wala réew nga miin ko bu baax a baax tey est ce mën nga taxaw véritablement firndeel que ni. Mhm. loolu ñu koy jiñ ay tuuma yu dara amul la wala xam nga ci dara également. non tuuma dafa tuuma xam nga audio yëpp laa déglu man dara du ma romb parce internet bi laay romb. Mhm. Euh, tuuma dafa tuumuraange tuuma amul ndey amul baay bu ñu la tuumaalee rek dee nga. bu ñu la tuumaalee rek euh, dee nga. Mhm. waaye euh, man bi ma dégloo Kouthia wax après dama reetaan. Mhm. ay ree la ma def xamul tax. Kouthia mi wax ak Pape Seye Diallo tekkiwu fi démb tekkiwu fi tey du a du mës a tekkit xam nga tax. dafa am wax yoo xam ne buñ la ci jàppee. Mhm. nga ne ka wax ka génnee say ojo na nga ko yóbbu ci yoon looy wax bañ lay enregistré. yaa jëw boo jëwul woon kenn du la enregistré. dëgg est-ce que mhm. boo waxul woon kenn du la enregistré. Mhm. Euh, li ku ca def euh, Pape Cheikh mais du lu bees ku caa yàgg na yàq ay nawleem. boo xoolee euh, dem na bu buntu Walfadjri nee na. am na ay caga yi nekk TFM ñu ngi leen ay fay ay 700000 moom ñu koy fay 300000 xam nga loolu yëpp yéen ñi nekk ci site internet gis ngeen ko déglu ngeen loolu marché bi mu doon di buntu Walfadjri mm-hmm. jamono yi muy nekk wal Walfadjri mu ne am na gaynde guy màtt biir wal Walfadjri muy wax ay Aïssatou Diop mu ne ay Diop Fall yaay gaynde gi matt biir Walfadjri kon Kouthia li mu def noonu la toll xam nga dam na Olof Njaay li mu naan juddoo ni nga juddoo màgge ni nga màggee jëfee ni nga jëfee mm-hmm. Kouthia ni mu jëfee nii noonu la toll nit ki li nga jëfee ni nga nga mel rek noonu ngay jëfee ni nga mel noonu ngay jëfee tey ah, sénégalais yi de nawloowuñ ko. Mm-hmm. amul benn sénégalais tey bu bu bu bu nawloo Kouthia parce que ci wax ju ñaaw ji nga xam ne nii. Mm-hmm. Ah, wax na ko wax ju bon dëkkul fa jëm fa mu jóge la mm-hmm. ah, na ñuy bàyyi yàqante bi waxante bu ñaaw rawatina sa collègue. de travail. tey nit ñi vaar dañ koo am xoolal vidéo yi ñu génnee fi muy taggee Pape Seye Diallo di ko di ko tagg. Mhm. di ko jiiñ naan ko Pape yaa baax Pape yaa mel nii yaa mel nii tey Sénégal mënuma comprendre dañ lay gërëm tey xas la suba. Mhm. Ah, ñi naan ay ku génne sa ojo dañ lay porte plainte boo nopp woon kenn du génne say audio pourquoi ngay jëw ba ñuy jël sa audio di ko génnee xam nga nit ñi euh, dañoo xamul Pape Pape dina lakk ñu bari Pape du tardé waxtu Pape foo ko fekk biir këram kurusam mu ngi ci biir loxoom. Mhm. Pape bu amee lu ko naqari dem na màkk umra jaamu ji yàlla ñibbisi amul animateur bu dàq jaamu yàlla Pape Cheikh barki Rasulullah kon doomu góor bu ñu toppee di ko topp boobu ba tey yéen a ngi topp di topp te la ngeen di topp ak la ngeen di wax gisoo leen ci lenn amoo leen ci lenn lu leen leer mais ngeen bàyyi jàmbur mais ba tey bàyyiwuñu wuñu yéen a ngi continuer di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax tey Pape Cheikh nit ñi dañ ko nawloo jàllo jéeri doon nga wurus ci digg mandin kenn mënu laa wacc doon përëm kenn mënul fexe ba def la përëm euh, li ma koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla sàmm aar ko yiir ko làkk ko fu làkk yeggul parce que soo biis nii la tey man soo biis Sénégal da ngay dem ba dootoo bëggati xam nga léeg-léeg dinañ wax Pape Cheikh Diallo dara bu ñu xool ni Pape lay metti hmm. ñuy wax ju ñaaw ji ñuy bale hmm. di ko ko sotti bu leen ni jàpp ni dina metti Pape Cheikh am na doom am na yaay am na frère man mi bi ma ko dégloo dama am na ma nakkar yi parce sama nit la hmm. neexul nit koo xam ne nii sa nit la mm-hmm. comprendre nga ñuy jël ay der yi ñaaw di ko ko waxal loo xam ne yow xamaloo ko ko mm-hmm. billaahi wallaahi taala la ñuy waxal Pape Cheikh barke rasulillah man mi koy fréquenté mm-hmm. di nekk ak moom xamaluma ko loolu tey bu doon xamal naa ko loolu du ma def interview damay maandu parce que ku dee ak sa bàmmeel mais nañuy waxante dëkk xam nga dëkk bi dafa bari ay naafeq euh, su ma gisee réseaux sociaux ñu ne waaw ñu ngi masaw Kouthia lan la ñuy masaw Kouthia moo wax mais ku wax lan lañ koy mastaw mm-hmm. ay Kouthia li ko dal dafa metti dara dalu ko parce que moo wax ñan noppi kenn enregistré wu leen ñan noppi kenn wax loowu leen mm-hmm. est-ce que nga mm-hmm. yàkkante bi waxante bu lu ñu ñaaw mi yaakaar naa ni jaru ko fi quoi. jaru ko fi nañ waat suñuy xel. Mhm. ñi xam ne diggante liir bi ak néew ba. Mhm. dara doxu fa. nit ki boo juddoo bala ngaa am tur. Mhm. dañ naan la ana liir ba. boo deewee nee nañ la néew ba. diggante néew ba ak liir ba yaakaar naa dara xeju fa. kon nañuy waxante lu baax nañuy waxante lu baax nañuy waxante lu baax nit ki boo ko xamul bu ko sosal. dama leen di fàttali benn anecdote dem naa Gambie ànd ak Fatou Laobé ma toog ko ko ocean nii rek. a ku ma fa ne ma nii. baaba ñu daal di nuyoon te mu ne ma ndeysaan man Pape Cheikh daf ma neex. Mm-hmm. dafa ma neex euh, dem naa sax fi nga xam ne moom mooy euh, fii ci Gàmbi mm-hmm. euh, am dëkk bu mu tudd dem naa fa seeti fat benn taawam boo xam ne dégg naa am na ko fa. Mm-hmm. ne ko am. Pape am doom Gàmbi gii. mu ne waa dégg naa am na fi doom xoolal wax yooyu. te Pape Cheikh nga xamee ko ñaari doom kon nga xam ne yi lépp lu ñuy wax dañuy sos. yi lépp lu ñuy wax ay fen la. te nit ñi dañ ko nawloo. billahi wallahi taala est que xam nga Pape Cheikh ñan ñooy ay soppeem kilifa yi kilifa diine yii ngay gis nii ak kilifa aada yi mm. wallahi azim ñoom ñooy seetaan Pape Cheikh tolloo génération seetaanuñ ko koo xam ne ay kilifa diine ñoo lay seetaan kër tarixa yi mm-hmm. muy murid tiijaan laayeen kilifa yi mag yi mm-hmm. ñoom ñoo daan toog di seetaan quartier général ñoom ñoo daan toog di seetaan Pape kon xam nga ni kooku référence la fi mm-hmm. mais sénégalais dañuy tuumaal a Euh, koo matul gaynde rek doo xulóog moom koo matul gaynde doo xeex ak moom mhm. man dama ne Kouthia tey jii li Pape Cheikh am amaana moom bu ko amoon du wax mhm. Pape Cheikh Diallo kenn ëpp ko personnalité ak fulla fii ci réew mi li mu fi liggéey du nax saay mhm. li mu fi liggéey faxas du ko dindi kon yaakaar naa coow li Euh, mbamb rayul weer waaw moom yaakaar naa mbamb bu nekk wax nañ ko fi musu mosoo leen dégg mu tontu mosoo leen dégg mu wax mm-hmm. may metti lu affaire bi wax dëgg yàlla neexuma mm-hmm. parce que li ngeen di wax bu leen jàpp ni pap lay metti day metti ñu ko jege. Mm-hmm. day metti yaayam day metti papaam day metti ay doomam est-ce que nga da ngeen di wax rek yaakaar ne nit ki kese ngeen yàq yàqoo leen ko moom dong yéen a ngi yàq ñi ko jege. yéen a ngi sonal ñi nga xam ne nii ñoom ñoo leen jege rawatina ñun suñu milieu showbiz bi rafetul mun nañu jëw te koo ci waxal tey tey tey tey nga yaakaar ni moo la bëgg bu subaa mu la yàq. Mhm. doo xàmmee kenn man dama ne wax whatsapp bii wala enregistrement yi est ce que ñu ko bloqué ñuy def écrit <laughs> léegi ku defati ojo ojo bañ a dem. parce que mhm. dañuy jël sa wax abu daal di koy génnee. daal di lay waxal lu ñaaw sosal la waxal la loo xam ne nii xamuñu ko. Mhm. doy na waar. doy na waar mais que euh, fan yi euh, gis nañ euh, ci page Pape Cheikh. page TikTokam bi. ak dama dafa mel ne wax ji faale wu ko dafa soulagé wu parce que fan yi gis ambiance bi Pape Cheikh Taye nekkee ci ci ci ci ci page TikTok am bi kaf bi ak réew bi dafa gën a yokk Pape li mu yëg bariwul waaw surtout gis naa Pape li mu yëg Pape li mu yëg bariwul moom lu bari sax ñi ñee koy woon du ko dégg Pape dafa dafa dafa daf dafa bigé mhm. boo xoolee tous les jours yaa ngi ci télé bi di daw di dem di lundi au jeudi ñaari fan yi nga war a noppal sa sa kër wax dëgg yàlla waroo koo nekk ay détails mhm. euh, kan moom mos a génn gis Pape seex ci boîte amut Pape Cheikh du dem boîte Pape Cheikh du génn guddi chaque jour mi ngi këram comprendre nga kon xam nga ne kooku li mu yëg bari bu ñu bu ñu la yàggee di tuumaal mm-hmm. depuis bi nga nekkee ci milieu showbiz bi ñi lay waxal di la waxal da ngay dem ba da ngay ay wax dëgg yow dara dootu la safati mm-hmm. lépp lu ñu wax dañuy jël multiplier ko par zéro dama ne ko dama koy parfois damay tiit mm-hmm. ma ne Pape Cheikh maîtrise mu am wala azim bu doon keneen dee na dëgg la parce que am na ñoo xam ne mënuñu muñ mais moom yàlla may na ko xolu muñ ba lu ñëw da koy rey Pape Cheikh mënul saan ndeysaan jooy ku dee. bu ñu ko nee diw dee na rek mu de day tiit daal di siiñ. Mhm. parce que ree la tàmm. day kaf day foo day ree day ambiance xol bi rafet na. Mhm. comprendre nga te te te Sénégal ku nekk sa xol bu rafet mooy sa wërsëg. suñu milieu bii tey boo gisee tey ñu dellu ginnaaw lan moo leen tardé soxor. surtout iñaan ak bon. Mhm. nañu waxante dëgg ku caatee waroon na weesu fii mu toll. ku caatee fii mu toll nii. waroon na koo weesu bu yàgg. parce que ñoom Pape Cheikh tey jii ba ñu doon mëq suuf moom mi ngi ci télé bi. tey ñooñu ñëw tey ba romb la kon xoolaatal sa bopp ku nekk sa xol bu rafet mooy sa wërsëg. Hmm. sa tey waroon may weesu fii dafa iñaan iñaan a ko dal ak soxor. parce que lii mu def nii du ne guleel parce que yàgg na ko def. comprendre nga hmm. tant que nag entreprise dem nga ba yàqante say nawle. Hmm. amal ngoor ba bul xëy si waat demal toog sa kër ah boo demee ba yàq ña fa nekk ñëpp ku nekk ojo ñi cent ojo la am nay génn nañu xaar keneen yow mi sa abu xoolal ba xam sa bos ñëw ca ah, ku nekk na xool quoi ba xam bosam ñekku ca cent dix audio la saa yu xëyee ñu génnee benn par benn benn par benn fu nekk ni ku tëdd doon nelaw ah. célébrité bi tëdd doon nelaw parce que da nga yaakaar ni sa tur mi nga ca hmm. léegi nag gore nga nag ba yàq entreprise ba nga nekkoon jaxase nit ña hmm. dangal toog sa kër loolu dongu la te damay dégg ñi naan ay Kouthia dañ koy yërëm dañ koy yërëm mais lan lañ koy yërëm yaa wax yaa wax te wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jógele cosaanoo man nee naa Kouthia nam na nam def noonu la tol parce que nit ki ni nga tol rek ngay jëfee amul ay yërmandeeg ñitu keesalaak nangam ak nangam non non non non yaa def ku bindee ñi tama ñu tullee la ñaari boor mm-hmm. loolu dong la dëgg la mais est-ce que tamit mënuñu jàppee Kouthia benn benn benn benn genre victime ci mbir yi parce que ci ginnaaw version bi mu joxe moom nee na koo xam ne jabaram la woon ay jamono ay problème mhm. am seen diggante mhm. mu génne audio yi dafa dafa jël téléphone kulu ne ko mhm. mbir mu demee est-ce que buñ sukkandikoo ci bu ñu jàpp ko ni victime la naam li mu wax ci mbir mi mais tamit dafa tooñ mais da ngaa tooñ tooñ dafa tooñ tooñ ñaar bi lu sa yoon ci waxu jàmbur même bu fekkee sa jabar ngay waxal même bu dee sa wax sa jabar ngay waxal lu si yoonu Pape Cheikh lu si yoonu keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen est-ce que comprendre nga wax ju ñaaw ji daal wax ju ñaaw ji daal bu doon sama sago wax dëgg yàlla ñu daal di xoolaat parce que fu mu nekk nii moom ñu ngi koy ngaaw ngaawum takk ji njeex dëgg la guddi yii nii. ñu ngi lay ñaaw ñaawee ci lu ñaaw. tey ku ñemewoon Kouthia na ko ragal. dëgg la. te wallahi azim fu muy fréquenté ñu wax la ko ñàkk bañ la ko wax ñun ñu ngi lay bàyyi xel parce que la nga def tey mu nga koo defaat. parce que wax yi dafa bari. wax ju ñaaw ji dafa bari ngay bale di sànni di bale di sànni di bale di sànni ka ngay waxal tubaarkàlla macha allah du la tontu. Pape bu ko kenn xaar ci tontu parce que tey jii ñaar ñi tey nga mën a def référence au Sénégal. Mm-hmm. Pape Cheikh Diallo Viviane euh, ak Youssou Ndour musoo leen dégg ñuy wax ay détails mosoo leen dégg ñuy tontu musoo leen dégg ñuy wax ak kenn mhm. comprendre nga boobu tey ñu ngi focus seen liggéey mhm. nekk seen liggéey di liggéey di jaamu yàlla mhm. te tey jii Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dafa neex euh, dafa neex a dafa dafa métti dundee. dëgg neex a deewee boo deewoon tey ku nekk tey jii est-ce que xam nga euh, bu ñu deewoon tey jii yàlla na yéex. bu Pape Seye Diallo génnoon àdduna tey bu ñu duggee këram ci la xam ne dafa am jàkk bu te loolu kenn mosu koo xam tey laa leen koy wax. dëgg la fi mu dëkk am na benn jàkk bu ñu fa tabax boo xam ne fa lay jullee di jaamoo yàlla. ay dem dama yëpp fa la koy defee. Mhm. tey jii bu ñu ko génnee woon rek. buñ ko bu tey bu génnoon àdduna rek ci la ñu naan kii ndekete nii la mel. nangam ak nangam nii ah, ak nii ak xamuñu lan lay dund ci biir këram. su amee lu ko naqari jël na billet dem màkk dem umra ji. Mhm. su paree mi ngi toog këram chaque alxamis mi ngi woor. nit bu leen ko gis rek ngeen gisé ko xamoo leen ko. Mhm. nit ki bu leen ko gis di ko jugé te xamoo leen ko tuuma dafa tumuraanke tuuma amul ndey amul baay buñ la tuumaalee dee nga buñ xam nga fi ñu lay tuumaal yëpp mënoo faa jaar défendre naan nii laa mer ak nangam ak nangam ak nii ak nii ak nii Pape Cheikh mënul toog tey défendre boppam bu li ko tey jii bu fekkee sax day semblant nii di kaf di foo di ree mais dina ko am lu ko métti au fond parce que tey jii li ko Kouthia waxal lebalu ko loolu keneen ak keneen lañ koy waxal lebaluñ ko loolu te man ñi ma ci Pape Cheikh muy Kouthia ak keneen ak keneen wallaahi azim man wax ju ñaaw ji ma dégg ñu wax Sénégal ñu wax Pape jàll Diallo yëpp ma xam ñi ko wax wallaahi azim sénégalais yi nawlawuñ leen <laughs> kon nag ku matul sa nawle wax dëgg yàlla